monsieur waaw Moussa Ndoye mais ñaari copains yi ñooy taxaw de. waaw maa ko soxla man garaawul maa ko soxla. yaa soxla Boucher. mais mais mais. mooy Boucher numéro 2 war de du de. ah du mër. Moussa Ndoye. ziar naa la. maa ngi doon ziar mais Moussa foo toll. waaw maa ngi fi di laaxatu rek nekk ci laaxatu. waaw promoteur yaa ngi ñëw. ñu ngi wax waaw promoteur yi nii di wax ak man instant yii nee na guy gi la soxla wax ko sa fii mu dégg ah yow yaay jëg combat bi des na si man de maa ngi Nenek ba ma joxoon avance sama demal ba ma joxoon 2000 ma xam ne avance bi taxaw na nee gi la bëgg waaw moom guy gi la bëgg aussi yow bëgg tëgg combat bi man mën naa ko tëgg mën nga tëgg Moussa Ndoye guy gi Moussa Ndoye guy gi naa ko tëgg incha allah naa woo gi téléphone eh Moussa Ndoye pare nga pour guy gi non pare naa pour ñëpp moom sa pare naa pour mais gi ñaari avance bëgg mu man raw ci làmb xam nga waaw dañ maa njëkk ci làmb mais dama leen ëpp coow làmb waaw loolu moo tax man a ñoom bokkuñu catégorie dëgg la ki ngay jël nag booy non booy yooyu dama leen di laa bëri sama bopp ah Boucher Boucher yow laay waxal waaw na nga def yow après ñu déggoo Moussa léegi léegi Boucher Bercy def ko doomu taal Bercy dama koy def pëndëf lu tax waaw Boucher. Ah. waaw Bercy da nga ko def pëndëx. waaw lu waral loolu. da nga ko répété wala. répété doon taalibe sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul. waaw foo dem rek sëñ bi was fësal la. allahu akbar boo doonee taalibe sëñ Tuubaa bëgg ko. waaw ko nawloo ko am soo ko teg. gëm ko. mu dëgg ci yow. foo dem. yow lañ dañ naan diwa nga ne. allahu akbar loolu sëñ def ci ab élément am. foo dem dañ naan diwa nga ne la. ak nga andiwaat sa élément bu sa sa rakk sa deret mu daan mu daan jël bu rëy. te suba bu ma ko indiwaatoon mu daan ku ma ko booleel day daan tey bu ñu ko joxoon kolifa ak Ada Fass mu boole leen benn takkusaan daan leen léegi yow foo jëm non man fi ma jëm yomb foo jëm li bëkkan dañu ma jox zos zos fay ko xaalis waaw fay ma xaalis mm. zos xeeb xaalis bi mm. ñu war ko dooleel xaalis ba tey nii mu yéex waaw ñu wax ak booy naar ci man waaw booy naar nangu waaw ba sayee uh-huh. mu war a xaar avance uh-huh. mais man maa bëggatul ñaar ñooñu ñëpp uh-huh. instant bii may wax ak yow. waaw dama taxaw taxawaayu jël xale yu ndaw yi. Ah. Albouri baax na. Albouri mais ngi troisième position. Albouri mu ngi troisième position. fu mu nekk nii sama xel ak sama xalaat. waa si kan la ne. xale bi ñuy coow naan dafa bari coow. mooy kan bu jugee réew jub muy jàmm gën. waa Liss Ndiago. waaw dinaa ko may saas. léeg-léeg déedéet déedéet buuse nag sama waay nga bugguma ko yàq sa kanam ji. nee na comédien yàq sa kanam de. non nee na comédien la. waaw dama ñëw taxawaay taxawaayu comédien ci làmb. waaw léegi dinaa leen wan ni ñoom ñëpp mën naa leen daan ñoom booy yëpp. mën naa leen daan ci benn tàkkusaan. ci benn tàkkusaan. su ma paree ci moom. am na keneen kuy ñëw su ma paree ci kooku keneen ñëw. léegi bëri tubaab benn mag xale laa laay bëri. xale ngay bëreel. waaw da nga samp daal xanaa dañ laa samp. yàgg na. kan moo la samp man depuis sam samp nañ ma depuis daawaat. que kan la mën naa ko samp man Tuubaa la ñu ma sam ci wutu jumaa ji man si Tuubaa rek laa gëm lu ma def dama ci am maa wax yow Moussa Ndoye guy gi foo si toll Moussa Ndoye guy gi dinañ ci dox insha allahu rabbi waaw Moussa Ndoye bëgg na foog ñu dégg kaaw guy gi xam so Moussa Ndoye mhm. dafa rep dafa rep ah. kon yow promoteur lutteur nga non man moom su doon bëri guy gi damay taxaw na ko tëgg naa ko guy gi laa faral. nga nga faral kon promoteur nga lutteur nga artiste nga. man lépp laa mënoo maa canaliser fenn. Ah. man bu ma kenn canaliser fenn. Ah. man lépp luy génnee xaalis bu lépp. Ah. bu set xaalis boo xam ne yaa koy liggéeyal sa bopp rek. maa ngi ci mais pétrole bi nekkoon si nag. pétrole ban. pétrole bi ñuy coow. pétrole daa bari coow mun nga see dee. jërëjëf jërëjëf Boucher.